yàlla nattoo yee juróom juro mangi ciy muslu lola jot len bi ci njëkk mang leni xamal ne bis bu ndialu bëri lu xale tuti-tuti ham juróomi fukki hat ak juróom ñaar fukku ah, wala ci gor wala ci jigen boko laaje mu ne amna lu mat juróomi coro ki ne amna lu mat juróomi far bu àdduna deme ba tollu fofa ndialo gi bëri ba du ko neub ci ci ci auberge du ngeen ko nëbbu ci hôtel yi du ngeen ko nëbbu ci mbedd mi xam nga leen yàlla fayam mooy indil leen mbas yàlla def nañu ko njaaloo gi bari na moo tax corona baa ngoog ah, Ebola baa ngoog feebar yu bon yi kenn xamut ma ko ay métit timit yoo xam ne ñi leen jiitu woon mosuñ ko woon a xam moom laa moom laa leen di fayee loola bu njaaloo bari xam ngeen ne feebar yi xew ji ci jamono suñ maam ya xamuñ ko woon suñ maam mataar ya xamuñ ko woon. jamono ju nekk muy gën di yokk jamono jii la hôpitaux yi gën a bëri jamono ji la médecins yi gën a bëri waaye terewul tey la malade yi gën a bëri te bu njëkk ba hôpital yi bëriwuñu médecins yi bëriwuñu waaye ànd ak yi bëriwuñu woon waaye tey garab yi bëri nañ xam-xam tey la gën a bëri ci wàllu médecine tey la médecins yi gën a bëri tabaarakallaahu tey la hôpitaux yeeg case de santé yi gën a bëri waaye tey la malade yi gën a bëri téeméeri nit ñoo janoog su la neexee man ngaa dogu ne juróom-ñett fukk ya ba juróom fukk yëpp ñi ngi sooxaaleeg jàngoro yoo xam ne ñenn ñu tëdd na ñeen ñu mënuñoo tëdd ñi ñi ngi amee jàngoroy bët ñii amee jàngoroy nopp ñi amee jàngoroy tànk ñii amee jàngoroy biir ñii amee jàngoroy ndigg ñii amee amee amee moom daal kanaa kay ay jàngoro la ñuy wax ku la xëppalee kay moo ne waaye koo wax kay dana wax ne la li yamay metti ak li lima lima lim bam bam bam bari waye jamono ji sax ko amé ben jangoro rek rek santal yalla lu ko waral njaalo bari yonentou bi neena bu ngeen demee ba njaalo bari neubatu len ko ta xam nga jamono ji moy yalla gi neubatuñ ko nek ko xamne ne ko ngeen bokk leungal ko ci penc mi di dox xamo ci ben rus kenn ku ci nek sol yere yu bon ngeen robu sen sen sen wajur ya rombu seeni nawla Amoche ca amoche amo ca dara dara dara loy rus bala nga de nga nan ki kat ñaanal ma mako ko bëgg a takk juróomi xat a may genn ak mom mané a ah, juroomi juróomi de kooku war ngeen sori de juroomi ngeen ni dox di lambar lambar rek kana kon defa ngeen nekkon sori na te lolu sax amo ca gàcca fofa bu fa jamono tolle ta xegg nañ fa kana passé kay lañ wax motax timit jangoro yuñ xamutoon mi ngi dal ci suñ kaw motax yoonu tubi daan wax ni ya al muhajirina خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا كوكو هيك نانشا ca البموني دوين في mu ne du ngeen fi nekk seen jaaykat yi la metras ba baxut ñi nekk fa di mës mësal kenn ku ci nekk soy jënd am nga sa pot boy jëndé ak pot bi ngay jaayé nekkut ben nga yar sa yi ak sa njabot gi ci tapalé soko ko wooyee ne ko la waaje commerçant ba defoon ne ko indil ma pot ba mu ne ko papa ban mu ne ko bobé lu rek la wax mu xam pot boba xam nga ne lolu ñom ñaar ñepp ki dëng na yar ci domam ba mokal dëng ga wan ko ne ko bobé manké namu bi may jëndé waye bokkut ak bi may jaayé de waaye ja dem andil ko doom ja dem andil ko pot boobee nga xam ne ñoom ñaar rek a ko dégg ah mu jëndee ca bu ko bëggee jaayee ne ko indil ma boobee am na nu mu koy xëccee ñoom ñaar rek koy xam nag tappale goo xam ne kenn mënu la koo wax nekk langage ci commerçant yi loola yonent bi nee na bu ngeen demee ba jamono hegg fa la ma leen ni la leen ni yàllay fayee mooy ati beekoor ngeen nekk ci tatak jafe-jafe boo boole ko buur yoo xam ne dañuy jeng ci seen kaw di leen mbugal du ngeen man dara yegg nañ ci ñett yëpp yegg nañ ci moo tax mu ne moom yonoon tooy wax walam yanqusul mikyaala wal miisaana illaa uxidu bi sinina wa shiddatil maunati wa jawri sultaan alayhim kon gis nga dugal ak toppale ci commerce bi jël prix deuxième qualité di ko jaayee prix première qualité jël marchandise mu bon di ko jaayee prix marchandise mu baax jël dugub ju ñaaw jaxase ko dugub ju rafet ju rafet ja nekk ca kaw nga def ko ca ngooñ ma def ko ca dugub ja def ko ca ceeb ba def ko ca xorom sa def ko ca yeneen xeeti jumtukaay yooya ñiy jaay xeeti marchandise ya fexe tamit yeneen ñiy jaay yeneen yëpp kenn ku ci nekk dugal nga ca ak toppale goo xam ne neexut a xam yonent bi nee na bu ngeen demee ba hegg foofa loola dafa garaaw ba nga xam ne ñetti mbugal la leen yàllay mbugal bi ci njëkk mooy beekoor dëgg-dëgg ñu ngi dund beekoor nawet bu ñëw rek gën a xées moromam xam nga ne ren ñëpp a foogoon ne dara du jeexati ndax li yàlla ji taw ren néew na jamono jum ko tawee waaye ndeketoo taw bu bëri du joxe nawet dem na sax taw ba beuri ba mujj taw yu mujj sa dafa mujj yak la li nga xam ne ñoroon na ba pare waaye dara taw bu yak nak may moom ñak taw ko moko ko gën nga nek ci décor ni ñi ñak ñi dem timit tabarakallah lañ xam ak ñi nga xam problème tak fu mu ne ci jaay ga da ngeen may jaayé juroom fukk far force ñi na ñun gis nañ ko man juroom ben fukk ñun du ngeen ko jaayé ci ngeen ko jaayé yoon dal ci seen kaw yooyu yep bàkkaar yu bon yi def mo mujj dalat suñ kaw ñun ñepp te kenn mënu ci mucc mu ne tamit ma teg leen coono ngeen xam lu bari te du man dara jamono ji fofu lañ tollu dara jeexut mais dara doyut dara jeexut waaye dara doyut ba fi suñ maam yi nekk nag amuñ dara mais jeexaluñ dara ñun nag neexut ba neexut ñàkkuñ dara mais amuñ dara ku la fi gën a bëri alal nga ñee ko boo toogee ak moom wéet ak moom boo boo ko waxee sa problème bu la waxee problème am rek li nga xamoon lépp nga bëgg ko koo may ngir yërëm ko ku la xëpp alal moo la xëpp coono dalaltuñ nelawatuñ ñi ci gën a sàggan jaamootuñ yàlla mënatuñoo teewlu mënatuñoo jàng alquran nañ ko bëggee mënatuñoo julli nañ ko bëggee mënatuñoo respecté waxtu yaag la ca aju moom daal kenn ku ci nekk tey sa wërsëg mooy sa coono wërsëg nag bu demee ba soppeeku coono musiba nit dikk na moo tax mu ne wa shiddatul mauna waaye ba ca tegu tamit mooy wa jawru sultaan mooy réew mu nekk di xoote woon ab jullit ngeen te marché ba teguwul ci yoon danaa leen nattoo président boo xam ne yéen ñëpp da ngeen ngéeju mu jugee koo fa. moo tax foo ca dem ña ngay joow jooy suñ président bi suñ président bi nangam waaye waaye bu demee tamit bëgg ne ñëwee nga ne na dem rek ku fi boole ne rek ak réew mu mën a doon rek bu ñëwee balaa yàgg rek nga ne doyal nañ sëkk na dem loola nag kon nattu la nekk ci ñun ndax ki ñuy jiite kenn la ci ñun rek duwul kuñ jëm jëggaani duwul kuñ jëlee ci mëneen réew réew mu nekk ka fa dëkk moo fa mën a jiite su boobaa nag kooku kenn la ci ñoom rek yonent bi daana ko wax ni ngeen mel rek laa leen di tànnal maanaam njiit lu mel ni yéen mu ñëw jiite leen kon nag tabaarakallaahu lii moom ñëpp ko dund ñëpp a ngi jooy foo ca dem rawatina ci réew réewi Afrique yi ña ngay yooxu seen président ba maa la ko wax kenn ku ci nekk ñii bu ñu xamee benn mandat doyal nañ sëkk ñii bu ne ñaari mandat doyal nañ sëkk ñetti mandat moom xel xelaatu ko su ko defee tamit coono yooye yëpp foo dem yaa ngi koy dégg tabarakallahu mu jaral nit ñi jaay seen bakkan loola mooy kon tekki ne doyal nañ ca waaye fekk ndeke te la lépp du dara lu dul bi nee na bu marché bi marché wul rek ca nam war mel lañ war a jaay ñi ko fay jaay di ko jaayee nañ ko war a jaayee yooyu yëpp bu dàqoo xor bari tapale bari gëñ ya bari manam timi naxante ba bari ma sadde len tek len njit lo xamne dafa len di karwasé du len yërëm te du ngeen ci man dara njit lo xamne du tegu ci yoon ku deung lay don te du ngeen ci man dara kon gis nga marché bu teggul ci yoon ñetti mbugal la yonentu bi jàngale ne mo ngi cey dal moy ati beekoor ak am alal ju ne ta man ta def dara ku la hepp alal hepp la coono ak njit lo xamne yaangi ngeejju mu baye ko fa muy ñaaragum ñetteel ba nag sallallahu alayhi wa sallam ne du ngeen fi nekk asaka war ki seen alal gi du ngeen ko génnee lu dul dama leen xeeñ taw maanaam bu taxutoon ak bàyyi may sax du ma taw taw ba may taw ak a néew ndox ma du ànd ak barke te bàyyi may laajte yërëm ngir ñi mën a am ñax muñ lekk moo tax may taw yéen tooy wax walam yamnau zakata amwalihim illa muniu lqatara min alsamaai wa lawla albahaimu lam yumtaru lii la yonent bi yox sallallahu alayhi wa sallam te loolu tamit dund nañ ko boo ko seetee actuellement réewu jullit ñi ci ëpp baadaloo ya rek ñoo cay génnee asaka ñoo ca gën a bëri waaye li ëpp ci milliardaires yi ëpp ci millionnaires yi buñ génnee asaka wala même buñ génnee asaka nañ koy joxee du baax te soo génnee asaka na nga ko joxee baaxul yàq ki génnewul asaka yeneen am ndax asaka ñañ ko war a jox yàllaa ko xasru bëggul ku ca bokkut dugg ca bëggul ku ca bokk génn ca ne innama sadaqaatu lil fuqaraa yi bu waxoon asadaqaatu lil fuqaraa dana jub waaye li ko noon nag ku ca dugg ku ca bokkut mën na caa dugg ku ca ku ca ku ca bokkati mën na caa génn waaye bu ne innama nga xam ne moo gën a efficace ci maanaam addawaatu xasr yi moom la yàlla appliqué dafa xamee ñaari maanaa xamee ne maawu naf yi xame maanaam illaahu isbaat ne sarax daal as kay duñ ko jox ludul fuqara yi masakin ak juroom ñetti xet yooyu mu lim kon nak su ngeen deme ba du ngeen genné asaka ma xagn len taw taw ba may taw ak neew bàyyi ma yay tax motax ñom ñoom danañ ñax muñ lek me yeen du ngeen xam gantax bu ngeen ñoon ndax ndox ma du barke kon tay ñoo sirat suñu bop tay ñoo sirat suñu bop lolu dundu nañ ko waye ñettel ñentel bi mu ne walam yanqudu ahdallaahi wa ahda rasulihi illa salatallaahu alayhim aduwan min gayrihim mu ne su ngeen demee ba firi rek yàlla gi ci war koo topp jëfandikoo ndigalam ya bàyyi tere yi war a war a war a timit ngeen firi bi bana jëfandikoo sunnaam